a baax ci sëriñ Basiru di ko gën a bu baax a baax ci pastéef ak wane gi wane liggéeyam bu gën a ñu koy ñaanal suñu borom yokk taxawaayam bu baax a baax gudd fan ak wér ci barkeb Seexul Xadiim waaye tamit ñu gën am mbégte di gën a bu baax a baax suñu waajur sëriñ Xaadim Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Xaboor di jàmbaar Serigne Abdou Khoba waaye tamit di suñu mbégte ah, di ko ñaanal bu baax Mbàkke di xam na le lépp lu ñu xewle gis ko suñu wet mu gën ñoo bëgg sëriñ bi li ñuy soññ bu baax a baax a baax ci ak taalibe looloo waral jotaayam bi waaye teewaay ci jotaayu Serigne Moustapha Mbacke imam di sant bu baax a baax Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Abdou Khoba ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér eh, ak moom nag egsi na léegi ànd ak eh, ay mbokk di mbokki di ay di muy Serigne Bousso bi Bousso ak Serigne Mame Thierno Diop ku ne xam na ko ci waxtaan ak Serigne Makhtar Sarr moom tamit teew na fi waaye tamit Cheikh Modou Fall Guèye moom tamit dugg si na léegi ànd ak daayira Ashabul Jannat yi ak tamit sëñ Baye Maam Dia xaafisul Quran bokk si raw royaan bu Touba moom tamit teew na fi ñu ngi koy sant bu baax dem ba léegi mooy fi ci bëccëg ba léegi nii fi ak tamit di wax ne Cheikh Adama Fall moom tamit mi ngi jotaay bi ak Cheikh Moulay Diop mi ngi fi ak tamit te te te mbay jóob xajana ngir mi ngi fi sëñ Abdou Guèye Diall bi magum taalibe moom te mi si jotaay bi sëñ di daan Serigne Touba Aliou Ndiaye ak mbokk taalibe yi nekk yëpp di jëwriñ ci Serigne bi ak mbooloo bi yëpp teew na di santaat bu baax waaye tamit eh, soxna waaw di sant bu baax nday daara xale yi ku ne xam na ni donge yi moom ni ñu baaxoo di dëkkee dañuy am yi tappe ñu leen sant bu baax di leen ñaanal suñu borom defal leen yokk bu baax a baax ba taxaw gi ñu taxaw xale yi ñu gën see mën a feeñal seen yéene bu baax a baax sant nañ leen bu baax ak mbokk soxna yi teew yëpp yëpp xanaa ñu tënk rek di wax ne ñu gën a gàttal comme guddi gi moo ngi dem ñu jox kuréelu tuut tànk yi nga xam ni ñoo doon jàng fii ñoom tamit ñu jàng xasida bu ko defee ñu jàllale programme bi li si topp mooy soxna maam jaara ñing moom nga xam ni jàngalekat la si daara ji war na jàllale lenn bu noppee jox ko taat mu tënk ci turu sëriñ Basiiru Mbàkke ci daara ji bu ko defee ñu door a jox sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Fallu moom sëriñ Basiiru moom tamit ñëw na léegi moo war a def waxtaan bi ci alquran ak sëriñ Touba. bu defee ñu jox Serigne Abdou Khafour Mbacke moom Serigne Bassirou Serigne Bassirou Dieng daal di tëj moo di def ci waxtaan bi فإنهم غير ملومين فمن ابتغى الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم jox sëñ Oustaz Ndiaye moom mu wax ci turu sëñ Basiiru bu ko defee ñu door a jox sëñ Muntaxa mu def conférence bi balaa nag ñuy jox sëñ Moustapha xam naa ne xale yi nga xam ne ñoo doon jàng fii alxuraan bi léegi ñu amaloon ay prime maanaam neexal yoo xam ni jagle loolu nañ leen ko ñenn ñi seeni waajur bu fekkee ñi ngi fi bu ñu leen tuddee bu ñu mënee jege ñu ñu taxaw fii ànd xale yi ñu jox leen loolu ñenn ñi tamit yenn ci kilifa yi ñoo leen koy jox xanaa ñu gën gàttal rek te xam ni waxtu wi day dem te ku ne xam ne la ñuy xaar suba ñu jëm ci bisu gàmm bi bu defee ñu tënk rek kon ñoo ngi sant bu baax sant tamit jàngalekat yëpp nga xam ne ñoo nekk ci daara yi xam naa kàddu gi ñu ngi koy wax ci turu sëñ Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xamee ne moo saytu daara yi euh, li mu wax nag ci wàllu daara yi dégg bu baax daara alxuraan soo ko ubbee war ngaa leeral la nga xam ne moo nekk ci biir ak na muy doxee lépp ndax loolu am na solo ñu xam ko bu baax wax na daara ji jigéen la góor jigéen la boole yi ci jàng ñu leen jàngal di leen yar boole ci waaye yewul nag nee na sëñ Basiru nee na daara ji tamit yemul nag ci dëkk bi képp doon ne xale yi fi jàngee fii ci caar yi képp la ñëpp ba Touba am na xale yu fi jóge ba yeneen dëkk fu ne xale jóge na fa ci daara ji dajaloo fi jàng alxuraan nee na tamit seen yi fi nekk benn xale yelwaan yi fi wax dëgg benn xale bu ciy gàbb sa bopp dem yelwaan yi amul ñoom ñëpp seen dund mi ngi aju Cheikh Mouhamadou Bassir mii ñi ngi añ ñi ngi reer ñi ngi ndékki loolu moom na leer ñëpp seen dund ak seen dëkkuwaay lépp dara manqué moo leen ko yore comme ni nga xamee ni noonu la yelloo kon nag loolu rëy na lool yoral la sa doom di ko jox muy lekk añ ak reer ndékki jox ko dëkkuwaay kon kooku li ko war wàcc wàccu naa ñettal mooy nee na jàngalekat yi fi nekk juróomi jàngalekat la ñett yu jigéen ak ñaar yu góor ñett ñu jigéen ñi jiitu mooy soxna maam jaara Fall bokk na ci jàngalekat yi ak soxna maam jaara jën ak soxna maam jaara yi mi nekk na fii bokk na ci Alaaji Touré xaw ma Moustapha Touré ñoom ñaari jàng juróom jàngalekat yi ñoo fi nekk ci daara ji di fi jàng ñoom ñu nag moo leen yoral seen dund yoral leen seen lépp fay gi mu leen di fay moom mi mosu koo ngaan kenn man mi maa ko wax kenn nu joxu ko di def ay pexe ba leen kenn ku nekk dana la fay weer juróom-ñetti junni at mi soo ko xoolee dana la jox quatre cent quatre-vingt mille juróom-ñett fukki juróom-ñeent fukki junni ak juróom-benn moom Serigne Bassirou dana ko génne si poosam jox ko jàngalekat Serigne Moustapha Imam nag mi ngi ciy jàpp mi ngi ciy ñaan néewul Serigne bi jàpp ci di waaye mi ngi ciy jàpp mi ngi ciy ñaan waaye loolu na leer ne kenn fekk ko ci moom mi moo koy defal ko kon nag war ngeen a jaajuwaat bu baax yéen parents élèves yi ñu fi jaaju seen doom. jàngalekat bu nekk weer bu nekk dana génne loolu fay jox la ko jox la añ jox la reer jox la ndékki dëkk la li mu jàng eh, élèves yi fi nekk tamit bëri nañ ndax ay ndongo bu ñu demee ba àgg ay ñaar téeméer bi juróom fukk bëri nañ yi ñuy jànge kenn ci yéen kuy jën téere am moom mi mooy toppatoo téere yépp jox ko ndongo yi loolu leer na ñëpp moom sëñ Bachir bi loolu nañ ko xam bu baax a baax a baax kon daal daara ji lépp lu fi nekk ci loxoom bi la nekk saa su nekk mu ngi daw ak ñëw di defar di def man mi maa ko wax ci micro waaye bu doon moom mi képp wallahi taala mi ko wax kenn du ko yëg kon nag te kenn musu ko yëg kon nag lii ngeen xamee ko noonu xam ne daara ji nii lay doxe ndax nit kat soo àndeek moom di liggéey na muy doxe war nga koo xam bu baax dégg ko jàpp ci alxuraan nag lépp lu ca waay def sa bopp nga ko defal wa xaqa an yuhda lil muallimi karamatan bi taalimi xarfi waahid alf dirham benn jàngalekat benn araf mi jàngal sa doom képp boo ko joxoon junni fayoo kon nag ngir maa ngi noonu lépp lu ci waay def sa bopp nga ko defal moom nag la ko war mi ngi koy def def na ko matale na lépp xale yi li ñu war ñu ngi jàng jàng bu baax ñu ngi tëdd ñu ngi lekk ñu ngi naan jàngalekat tam li war seen diggante ñoom def na ko matériel ko comme yi ñu la leen ko leeral ngeen xamee ko noonu mi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla tabaraka wa la li ngeen nas seen xol ci yéene ko yàlla na ko sëriñ bi àggale te ngeen matale ko noonu di ñaanal tamit sëriñ Moussa imam mi nga xamee ne mooy jëwriñ ci tool bi ndax jëwriñ la ci tool bi te tool bi tamit setal na ko yaatal na ko fu ne ba kenn ku nekk mën ngaa jaar fu ne meññee fi meññi kenn ku nekk mën nga cee watt loolu leer ngeen bu baax ndax ngénte bu toll ni fii taaral na dëkk bi mooy ngénte tudd doom yomb na waaye ngénte su ngénte jotee nag dafa am lu war man ngaa rey nag rey gëléem rey lépp te lépp xam nañ ne loolu am na fi ngénte Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppeb xaadim rasul nga xam ne moo Sëriñ Tuubaa ndox ak suukar la kenn mu leen tàggale loolu ku ko ngénte rek tiyaaba ya ña teg seen tànk ak ñi jël seen ñaq def fa ca lekk yaag bernde ak ñépp fii ba weer wi jeex Seydina Muhammad nee na bu ñaala loo fi def maa la koy remboursé kon lu ngeen ci def rek loolu la moo tax moom xam loolu di bëgg nit ñi dal fu rafet tëdd fu nooy lekk lu lekk lu neex loolu kepp a tax képp ku ci fere sa alal nu mu mën di toll rek danañ la ko fulal kon nag loolu ngeen xamee ko noonu bu baax waaye ki defoon sampat bi nag ah moo bayoon tool bi de defar fi ay nit nit kenn ku nekk boo làmbee sa xol toog wéet sa roq xam ca la nga nekkoon nekkaat làmb taxaw war ngaa jóg dukkat ne jërëjëf si Abdou Khafour doomu Maam Mor Diarra jërëjëf Cheikh Abdoul Khafour yàlla na yàlla yokk leeram ca barsan mission Serigne Touba bi joxe na ko defal na ko de nit nag balaa nga koo xam dafay nekkul barke bi ñëw Serigne Touba mu mat sëkk la doxinu Serigne Touba la ndox moo tax bi mu demee lii day leeral foog ñu leeral ko foog mission bi ñëw lii lépp Serigne Abdoul Khafour la ñun nag bu ñu conférence bu ñu continuer dañuy jàll si al conférence bi xam naa lii la sëñ Bachir waxoon ne nañ ko joxe ndax waxkat soo ko joxee rajo mën naa jàll feneen tey waxtaankat yaa ngi fi duñu conférence ñu ngi leen di dénkaat bu baax ci ndénkaane yi Serigne Touba su ma paree nag ma joxe micro sëriñ tubaa nee na fa kullu insaanin maaw isnaani nañ dégg li mu wax baax doomu aadama bu nekk am na ñaar yu mu àndal ahaduhuma malikun kenn ki malaaka lay doon wasaani seytaane malaaka ak seytaane ñaari rek moo fi nekk nga ànd doomu aadama nee na malaaka mi nag amul lu dul yitte li nga jëf mu fulal la ko benn boo def mu bindal la juróom-ñeent ak ba nga defoon muy fukk kon nag gaaw daw ci lu baax am na solo de moo tax mu ne wal maliku laysa lahu himmatun illa kaddu amalihi wa seytaanu nag laysa lahu illa lahu himmatun illa fasadu amali seytaane toujours mi ngi taxaw sa wet soo defee benn bu ñaawteef mu lay pousser benn boobu boo ñu jéggalu ñu bindal la benn ñaawteef ñaar yooyu moo ànd ak doomu yàlla wax na ci alxuraan aleykum wa inna aleykum la xaafisuun kiraaman kaatibiin kenn ku nekk ànd nga ak ñaari malaka te xam ngeen ne barab bàmmeel xat na takk sa loxo boo demee fee étage bi lu mu rëy rëy lal bu lu mu nooy nooy takk loxo yi taxaw ñaari junneeg ñaari téeméer doo ko passé bi lu ñu tuuru laaj ko lañ gas la ba nga ko tàbbal foofu kenn képp nga fa yaakaar muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xamee ne moo ne simaamul wara asri lallaahi fi yaddi yàlla yë yàlla nosu jaam yëpp teg na ko sama loxo man Sëñ Tuubaa te Sëñ yàlla ruux soxla jël ko te boo fa wàccee dañ lay woon gannaaw dem nakki rek mu nakki ñëw laaj la man ràbb ko maa kitaabu ko maa diinu ko kala layal nag ka nga xam ne moo lay tontul nekk fa kon kooku jar naa bàyyi xel bu baax seytaane nag yàlla nee na boole na la ak ñaar mooy kiraaman kaatibiina mu waxaat ne inna seytaane lakum adduun fattaxisuuhu adduwan seytaane na ngeen ko jàppee nooy noonu te àdduna moom ñaar yooyu moo fi nekk seytaane mu ngi si wet am na ñoo xam ne tey ñu ngi bëgg leen seytaane rek moo ne seen biir dara nekk kon nag loolu ndénkaanul Serigne Touba la mu ne xayru taami lil muridu assaliki dawaamu zikril jalaalil maliki nee na ñam wi gën a neex ci ab murid boo xam ne dane murid laa bëgg naa àgg ci yàlla bëgg naa àgg Serigne Touba mooy nga sax ci yàlla tabaraka wa taala jàmm te wéetal ko jox ko sa bopp jébbal ko sa bopp xam ne ala kulli ci moom ngay delluwaat wa xayru zaadi tuqaa wal li man faqru liman lu xabluhu wa ba'dal amri nee na li gën a rëy nag ci ragal yàlla dëgg-dëgg ak ñàkk yàlla ak ñàkk mooy nga delluwaat ci lépp lu baax mu ne ngànnaay li gën a rëy nag mooy toroxlu jaamu yàlla jébbal ko sa bopp jël tamit sa bopp jox ko sëriñ bu mat sëriñ sëriñ bu mat sëriñ boo nekkoon fii bokkoon ak kii waa ji dawaloon gaalam ba essence jeex mu taxaw na si Abdou Khafour laa fi yaakaar taalaam gaalam muy daw ba mu agsi mu xool wàccaat ñëw mu fees dell kooku sëriñ bu mat sëriñ la àndal suñu sooy maam tamit mat na sëkk te soo ko gisee ci kaw oyof na ci kaw mais baatin bi sëriñ bu mat sëkk sëriñ la noonu la tamit noonu rek lay doxe doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine Lamp Fall Babil Mouridine mi nga xam ne moo fi leeral naa képp lay doxe loolu mooy tarbiya dañ lay tarbiya tarxiya la tasfiya la nga soog sell ak matale lépp moom nag foofu la nekk moom sëñ Basiru bi ñoo ngi leen di sant bu baax xam naa bu ñu xaabalee waxtaan bi nee na mu ngi sant bu baax baax ci taxawu bi ak ci liggéey ci pasteur bi ngeen wane diiru bi nekk ci wàccaayu gàmm gi ba léegi leen seen yéen bu baax moo ngi sant bu baax baax di leen ci baas bi taaruwaay bi kaseer bi ngeen ci wane leen ñaanal bu baax suñu borom yokku leen da ngeen yàgg ànd sëriñ bi ci liggéey yëpp di sant bu baax di gërëm di fàttali rek yii nga xam ne moom lañ waxoon léegi xanaa ñi nga xam ne ñoo ngi tudd bi seen tur rek ñu bëggoon comme waxtu bi dafa xaw a tënk ku ne xam na li ñuy xaar suba ñi ci tudd ñoo xam ne seen waajur yaa ngi ci ñu ñëw ñu jox leen neexal yi nga xam ne ñu doon tari alxuraan bi ñoo ko doon tari euh, Masaw Saari borom dëkk bi bu fekkee mooy bi mu jege si ak Ousseynou Lo baayam bi Basirou Lo bu fekkee muy ci baax bi mu ñëw fii Moussa Diop Masaw Saari bu dee mooy fii wala kenn koo xam ne mbokkum Moussa Diop la mu ñëw fii ma. Diop yàlla def sëriñ Bachirou Mbacke jàngal na ko ba mu mokkal ñi ngi koy jox kaamilu alxuraan bi ngir bëgg moroomam yi góorgóorlu ne moom li mu jàng yàlla na ko pour yàlla barkeel wasalaam. jërëjëf jërëjëf. loolu bu dee moo ngi ci baax bi dañuy dégg mu jege bi Sëriñ Ndiaye. Serigne Ndiaye monsieur Thiandoum monsieur Thiandoum Serigne bi ñu ngi lay dalal ak cant bu baax a baax di la taxawaay ci xale yi moom mooy jox Serigne Ndiaye jërëjëf jërëjëf monsieur Thiandoum ñaanal di ko ñaanal bu baax suñu borom sàmm ko jërëjëf soxna Mame Faye jërëjëf sëñ bi Ndiaye Diop ay dakaan bu dee moo ngi ci baat bi dañu dégg na ñëw jege si fii bàyyi gën jërëjëf soxna jërëjëf soxna Ndiaye Diop. Amat Samb mu koy jox neexalam soxna maam Diarra jërëjëf neexalam soxna maam Diarra jërëjëf. gënu mag moom Serigne Moussa Lambaye imam maam jaara bay te yaa ngi dégg Ibrahima bay maam suñ Ibrahima bay maam jaara jërëjëf sëñ Ibrahima waaw umu Ngom Moodu Ngom bu dee jege nga fii umu Ngom mu xaboor ngom Modou Ngom moo koy dox kon bu ko defee ñu njëkk lante ak waxtu bi rek Ibrahima Bey suñu Ibrahima Bey am jaara jërëjëf sëñ Ibrahima waaw umu ngo bi jëndi seen tubaab yéen déglu bi ñu sëriñ bi teree lépp loo xam ne ak texee yi la ñuy jural daf ñuy digal nag nañu nañuy ànd ak taqoog ñoo xam ne duñ dañ di nekk ci li suñ borom digle te mooy jaamu yàlla waaye duñ cee am waaye ba noppi dañ ñuy wombat nag jëme ñu ci njub googu loolu mooy liñ gis fii ak njub rek dañ fi fekk njub goo xam ne daf ñuy wombat jëme ñu ci ci suñ borom kon ñuy sant yàlla bi ñu yàlla boolee ci jotaay bi mu mel ni tom bi ñuy waxtaane nii tom bu am solo la boo xam ne dañuy wax ne sax mooy tomb bi ëpp solo gën a mag ci mbooleem lu ñuy waxtaane lu bokkut ak moom ndax mooy li gën a màgg ci kaw suuf diggante asamaan ak suuf lépp lu fi nit di gis baal mu koy dégg mbindeef la ba mu des alxuraan ji ñuy waxtaane diggante asamaan ak suuf alquran rek mooy li fi nekkul mbindeef waaye di loo xam ne dafa bokk ci suñ borom nekk bokk doon aw melo ci melo yi suñ borom yi doon loo xam ne dafa taq ci jëmmi suñ borom kon lépp lu nekk ci kaw suuf rek alquran ji ñuy waxtaane mooy li la gën a màgg waaye alquranul karim ak digganteem ak Serigne Touba. sëriñ tubaab ban taxawaay la amoon ci alquran ban wàccuwaay la joxoon alquran loolu damay wax ne géej la goo xam ne képp ku ci wax da ñëw rek tanq ca la nga mën a tànq dem waaye mënee su koo jeexal waaye bala ñuy ñëw ci loolu dañoo bëggoon a ñëw tuuti ci alquran ci boppam alquran bu ñu koy xamle dañuy wax ne mooy waxi suñu boroom ji nga xam ne daf ko wàcce ci yonenteem bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk aw layam bu koy dëggal ci li wax ne yàllaa ko yónni waaye mu nekk wax yàlla joo xam ne itam dañuy jaamu yàlla ci jàng gi ñu koy jàng buñ ne dañuy jaamu yàlla ci jàng gi koy jàng mooy ne julli jaamu yàlla la wax ne bu ko mukallaf mi defee ñu bindal ko ci ab yool waaye bu ko bàyyee daje ceeg mbugalum suñ borom te julli munta wér lu ci alquran la salaata man lam yaqra bi fatihatil kitab loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli du am mukk ci koo xam ne dafa julli ba julli nga jeex te jàngu ca fatihatul kitab kon jàng googu ñu koy jàng ci ak julli te julli munta wér lu ci moom mooy wane ne kon jàng ngiñ koy jàng ak jaamu yàlla la waaye beneen bi ci des buy wane ne jaamu yàlla la mooy yool bi nga xam ne suñ borom diggéene ko ci ci jàng alquran diggewu ko ci leneen lu ñuy jàng lu bokkut ak alquran loolu mën nañ ci indi benn hadis rek mu doy te mooy hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne da jàng ci téere bi yàlla bi benn araf nee suñ borom bindal na la ci aw yiw te nee na yiw yiw wu ci nekk daf koy ful ba muy fukk da di wax ne waxuma sax ne alif laam miim xarfun la waaye alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun ne araf wu ci nekk nee na dala cay bindal aw yiw ful ko ba muy fukk ne kon yool bi nekk ci jàng alxuraan nekkut ci leneen lu bokkut ak alxuraan waaye buñ ne dañuy jaamu yàlla ci jàng gi ñu koy jàng dafa léeg day am lu nuroog alxuraan bokkul ak alxuraan nga xam ne loolu ñu wax léegi moo koy génne ci alxuraan lu mel ne xadisul xus yi waxe suñ boroom la waaye nag bokkul ak alxuraan ndax moom jaamuwuñu yàlla ci jàng ko jaamuwuñu yàlla ci jàng ko ndax boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne alxuraan dafa jóge ci suñ borom lafsan wa maxnan ci baat yi ak ci maxnaan waaye hadisul xudsi yi nag dëppoo nañ ci ne max naan mi ci suñ boroom la bàyyi ko waaye nag lafsu bi moom boroom xam-xam yi dañ koy wute ñi ëpp sax dañ ne bàyyi ko wut ci suñ borom kon loolu mooy li ko wute rek alxuraan waaye ba tey li koy wute alxuraan mooy alxuraan suñ boroom daf ci tëkku nit ñi mu nekk ixjaas loo xam ne suñ borom daf ciy lottal doomu aadama wane ne lii kat ca ca yàlla rek la mën a bàyyi ko tëkku ci doomu aadama yi nag ndax yëfari màkke yi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day jàng alquran dañ ko doon tuumaal ak di ko sosal naan li muy wax kat ay sos la rek lu mu duural boppam la moo ko fental boppam suñ borom tëkku leen ne leen fal yaatu bi mislihi in kaanu saadiqin bu fekkee ne li ñuy wax dëgg la ne da koo sos ay duur la waaw nañu indi lu mel ne moom nañu indi lu mel ne alquran ñu lottu ca lottu ci indi lu mel ne alxuraan suñ boroom dëkkuwaat leen ne leen kon léegi nañu indi fukki saar yu mel ne saari alxuraan fukki saar rek ñu lott ca lu mel noonu suñ boroom ne leen léegi nañu indi benn saar bu mel ne benn saar ci saari alxuraan yi ñu lott ca lu mel noonu suñ borom ne leen kon nañu indi rek aw waxtaan benn jumla loo xam ne waxtaan lay doon rek gu nuroog benn aaya ci aaya alxuraan bi ñu lott ca suñ borom ne am yaquluuna aftaraahu qul faatoo bi asri suwarin muftariyatin wad'u man istataxtum min dunillahi in kuntum saadiqin ñu lott ca loola mu ne léegi yonent bi wax leen ne leen nit ak jinne bu ñu daje woon ñoom ñëpp bëgg indi lu mel ne alxuraan duñ mën a indi lu mel ne moom mukk donte dañuy dimbalante ci seen biir di jàppalante ci seen biir ngeen indi lu mel ne alxuraan du ñu indi lu mel ne benn aaya ci ci alxuraan loolu mën nañ cee joxe misaal am na noonu bu yàlla bu mag ñu di ko wax mu musaylimatul kazzab doon na jéem a indi lu mel ne alxuraan ndax dafa woote woon ne moom ab yonenti la ne day indi lu mel ne alxuraan waaye loolu mu doon indi dafa mujj nekk nekk léegi maanaam. di reetaanlu nga xam ne dafa mujj léegi nekk reetaan ak reetaan ku ñuy reetaan waaye xeeblu boppam indi loo xam ne sax dafa mujj nekk ak xeebeel ci moom nga xam ne dañ ko ci xeebeel loolu moom la Sëriñ Tuubaa di wax ne alam tara anna allaha axza bi dikrihi musaylimatal kazabi jaa subha mu ne gis nga ne suñ borom gàccal na ci alquran ji ci alquran ji noonam boobu ñuy wax Musaylimatul Kazzab bi muy jéem a indi lu mel ni alquran mu ne xataa alxumru alfaadan asaaxat fuduuxahu wa adbara an dikrin hakimin wa kurha mu ne jéem a indi lu mel ni alquran moom dof boobu Sëriñ Tuubaa ab dof la ko tudde alxumru la wax am dof bu sotti xumru li muy firi ci mooy dof bu sotti boo xam ne kenn wérantiwut ak ndofam mooy doon jéem a indi ay baat yoo xam ne ñooy di ciy nuróole alxuraan waaye far na gàccaal boppam far na gàccaal boppam sëriñ tubaa wax ne moom moom sëriñ tubaa day dàq dàq na musaylimatul kasaab moomu sa yatruduhu habdul ilahi wa jaarihi xadimi rasulillahi torda mu ne jaamu suñ borom bi di kii liggéeyal yonent bi te mooy moom sëriñ tubaa mu ne dina dàq jaamu noonu bi yàlla boobu te mooy musaylimatu al kasaab bokk na ci musaylimatul li mu daan indi di ko tuddee alquran moom bokk na ca nga xam ne boo ko déggee rek ay ree dalay jàpp alfiilu malfiilu wa ma adraka malfiilu lahu zanbun xasirun wa sanumun tawilun maanaam ñay lay wax naan ñay ñay ñay lu màgg la am wax yu kenn xamut kenn xamut nga xam ne tegginuwut sax ñu fa mu ko daanale tegg du teggin sax ñu ñu koy tudd ci aw làmmiñ bokk na ca lam daan wax naan wa taaxinaati taxna wal xaabisaati xubsa wa zaaridaati sarda wa laaximaati luqma am loo xam ne kenn xamul lu muy firi lu wax ju reeru moo tax am na ay borom xam-xam yoo xam ne bi ñu déggee mu wax loolu dañ dañ caa teg ne ngir ñaawal ko dañ ne da caa waroon a teg ba mu waxee loolu wa laaximaati luqma wal xaa'itaati xayto loolu la ci waroon teg kon loolu li muy wane mooy alquran moom doomu aadama lottu na ci indi lu mel ne moom bokk na ci li alquran wutee ak xadisul xussi yu ba tey mooy alquran kenn du ko laal ci ak laab laa yamassuhu illa almutahharun te xadisul xussi yu mënees na ko laal ci lu dul waaye alquran moom kenn du ko laal ci ak laab suñ borom nee na du ko laal mukk lu dul way way laab ñi waaye xamle bi gën a gàtt ci xamle bu alxuraan mën nañoo andi hadis bi nga xam ne sayidna aliyu moo ko nettali jële ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallama yonente bi wax ne alxuraan mooy téere bi yàlla bi nga xam ne da leen di xibaar la leen jiitu woon ci ay xew-xew di leen xibaar li ñëwagut ci seen kanam di àtte seen diggante li ciy xew ci ay xew-xew wa huwa alfaslu laysa bil hasli mooy liy teqale dëgg ak i caaxaan te leen ni caaxaan nekku ci ne képp ku bàyyi alquran ci jabbaar ab tooñkat bu nekk ci kaw suuf wala ab yàqkat bàyyi alquran nee suñ borom dana ko alag alak ne ku sàkku ak njub te sàkkoowu ko ci lu dul alquran suñ borom dana ko sànq wax ne wa huwa hablullahi almatin mooy buumug yàlla bu dëgër gi wa huwa azzikru alhakim mooy téere bi yàlla bi nga xam ne bàyyiwu dara lépp lu am njariñ ci dundug doomu aadama andi ko wa huwa siraatul mustaqim waaye mooy yoon wu jub bi nga xam ne kenn du ko topp di sànq wax ne alxuraan mooy li nga xam ne ci kiimaanam bi ko jinne yi déggee ñu di ko jàng ci alxuraan mënuñoo téye seen bopp bañ wax ne inna sami'na qur'anan hajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wala nusrika bi rabbina ahada mu ne jinne yi biñ déggee alxuraan mënuñoo téye seen bopp ba ñoom dañoo wax ne ñun kat dégg nañ alxuraan di yéeme yoo xam ne dafay gindi nit di ko jëme ci ak njub ñu gëm ko daane bokkaale wuñ yàlla duñu bokkaale yàlla mukk ak kenn kon ci boobu yonent bi sallallahu alayhi xamle na fi lan mooy alquran waaye sëriñ Tuubaa itam xamle na ko xamle na alquran ne laqanahu kitaabuhu kitaabahu lmubin azhara ma baana wa ma laysa yabin aqra'uhu min lawhihi walqalam man saanahu an raybin wa zulam mu ne suñ borom sana yonenteem bi téeréem bu bér boobu nga xam ne dafay leeral lépp lu feeñ ak lépp lu nëbb mu jëlee ko ca lawhul mahfuus jàngal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne akrim bi dalika alkitab fiihi fiihi fiihi hudaahu wassawaab fiihi alxitaabu waljawaab min rabbina fi lqidami mu ne maa ngi yéem téere bu tedd boobu téere boobu nga xam ne mooy ak njub téere boobu nga xam ne lépp lu mat a wax wax na ko waaye lépp luy lu mat a tontu itam tontu na ko loolu Sëñ Tuubaa wax wax ne huwa shifa min kulli daa liman alayhi ihtamada wa man abaahu turida za hasratin wa nadami wax ne téere bi nga xam ne dafay saafara mbooleem jàngoroy xol jàngoroy biir ak jàngoroy bitti waaye ku bañ alxuraan nee dañ lay dàq ci yërmande yi suñ borom wa huwa lasi man ihtada bi hadihi naala huda wa yaxtawi l fawsa xada nee na képp koo xam ne yaa ngi jéem a jub te jaare ko ci alxuraan danga jub waaye te da nga am ak texe ci suñ borom wax ne haada kitaabuhu jamiha maftara min kutubi man madaw bayaanan qad faraq bayyana ma mada wa ma aana wa ma yaati bihi llahu kitaaban aqwama nee mooy téere bi nga xam ne dafay teqale lépp loo xam ne borom xam-xam yi dañ ko bind ci ay téere mu ne alxuraan daf koy teqale di teqale la wéyoon ak li teew ak liy ñëw ëllëg loolu di firi li suñ borom waxoon ne ma faradna min fil kitaabi min shay bàyyi wuñ ci ci ci ci bi dara lépp lu ma lu am njariñ wala lu yitteel dundug doomu aadama rek suñu borom andi na ko ci andi na ko ci alquran alquran di lu bari ay ngëneel jàng ji euh, suñ borom ci boppam moo wax ngëneel li nekk ci jàng alquran mu ne ñi nga xam ne dañuy jàng téere bi yàlla bi di taxawal julli di dundalee ca la ma leen wërsëgal ci lu nëbb ak ci lu feeñ nee na ñooñu dañu am bénéfice bu mag te danañ am yool bu màgg ci seen borom. mooy inna alladina yatluuna kitaab allahi ila axiril aaya ba aaya ba jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xayrukum man taallama alqurana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran bu nekk wëlbatiku di ko di ko jàngale addis yu bari rot ci wax feeñal nga nee li alquran bokk na ci addis bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ki nga xam ne day jàng alquran te yàlla def mu mën alquran nee na kooku dana am ab yool dana ànd ak gaa ñu baax ñi ëllëg yowmal xiyaam ni ñu tudd as safaratul